soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónneen sanga soo daan mooy bay looy xutbay seydina limaamu alayhi salaam ak xutbay seydina isa ruuxullah mooy seen ndono loo xam ni ñaari ponkal yooyu bàyyil bàyyi bàyyi nañ ko pour ñun digal ñu it ñu moy ci bu fekkee bëgg nañoo mucc ci àddina mucc ci àllaaxira li tax nag ma tànn xutba bu njëkk bu Seydina Isa mooy dafa doon xutba boo xam ni daanaka dafa résumé moo mbooleem digle ak instruction yi nga xam ni doon na ko joxe moom baayam ci yeneen xutba yi yépp sama génn àddina bu jotee dinaa fi jóge mais li ma suñu borom jox pour ma jox ka yi bu amee lu ci manqué xale bii moo koy mottali te boobu mu ngi am daanaka juróom-ñetti at keroog la jàpp Seydina Isa ni leen man day xam naa ni kuy mbindéef ci àddina dina wuy ji Rabbana bu ma fi yàlla jëlee te yi may wax matul gis leen xale bi lee koy mottali te lii day wóor na fii ci àddina mu jëkk wax bi mu santee boromam mooy maa ngi leen di yëgal sama bàyyi Imaamu Laahi na maanaam génn na àddina ji nga xam ni kër guy jeex la jëm ci alaaxira ji nga xam ne mooy këru dëkk tey sax question bi mooy lan moo tax Seydina Isa ruuhullaahi di confirmé génn ak àdduna Seydina Imaamu li tax mooy génn ak àdduna Seydina Imaamu dafa diisoon ganna ganna ganna ganna ci taalibe yi de telle sorte que lu jafe woon ñeent fukki at yi mu fi def yépp ginnaaw bi mu présenté xutba bi musul dañ di sonn taalibe yi ci jaamu yàlla wuutu nañ diin ñeent fukki at waaye jullee ko wóor la digle it naan leen ibaadaat yi namat sax ci jaamu rabbana ñeenteelu mbir bi Seydina Isa tudde ci xutba bi mooy confirmé ya? yonent tak way juróom seyna naa limaam ne na ngeen xam sama baye daf daan wax man ku ñu yoni la te ku ñu jox ndigal ci ma jotale la te jox ma leen lu dul li ma suñu borom digal ma jox leen ko te moy ngeen jaamu ko jaamu bu sel la fu ngeen mën nekk ci adina ci fofu la seyna Isa tegge eh. tuuma bi gën yes buñu bu talibey seyna taalibé te mooy ni ñoom daal ci seen ak fépp lañu waxee ni seen ak sëriñ suñu borom moo ko yónni waaye seen ak sëriñ mosu koo waxal boppam maa ngi leen di souhaiter bonne chance ci xeex boobu ak cheytaane wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu

你。